abonnez niveau sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. mbokki internet yi dalee nag jàmm fële ci Sénégal nag jàppale ne mbir mi nga xam ne ñu ngi koy tuddee AER Sweet Beauty danañu dem ca projet am duñ ca dem dara leeragu ca waaye jàppale nag beneen plainte daal dinañ koy teg ci table ki nga xamante ni moo di procureur jamono ji nag fële ci réewum Sénégal lañ fiy waxtaanee bari lool bokk ci muy ab vidéo présumé bu nga xamante ne nekk na vidéo compromettante supposé présumé bien entendu bu ñuy wax ci diggante ki la di leader de l'opposition bu Sénégal di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di ndaw si le di Adji Sarr nag loole wéy di def ay coow nag noonu nag jàpp leen ne ki nga xam ne moom lañ ci daan tudd muy doom kile di euh, l'homme d'affaires Dora Gueye moom mi ne nag ñu accusé ko mu doon jéem a jënd ab vidéo ci lu toll ci fukki million ci sunu koppar ci ki nga xam ne nag moo di Sidi Ahmed Mbaye moom amee sax ñuy duppee ab xarit ci soxna Sidi di Adji Sarr naka noonu ñi koy jiiñ ne moom guddi ki nga xam ne les faits supposés yi Adji Sarr di jiiñ euh, kii di Ousmane Sonko moom moo ko daloon di jëli ci oto daal di koy yóbbu ca guddi googee nag loolu nag ñuy jiiñ ab euh, ki nga xamante ni moo di Dora Gaye jënd vidéo bu toll ci lu toll ci euh, dix mille francs CFA mu jënd ko ci Ahmed Mbaye mel ni nag moom Dora Gaye daal weddi na lu ni mel naka noonee ci la décidé daal di porter li nga xam ne moo di plainte plainte boobu nag da ko porter contre X pour diffusion de fausses nouvelles injure publique ak li nga xamante ni moo di mise en danger de la vie d'autrui moom nag plainte Tum moom mi ne di woy ci turu Doro Gueye homme d'affaires bu ni mel daal dinañ koy enregistré ci numéro 37 54 loolu nag mu ngi ko déposé ca fa nga xam ne moo di procureur de la république naka noonu nag moom mi le ngeen jàpp na ci lettre bi nga xam ne moom la bind ci plainte bi ñu mel moom door Gaye nag dafay daal di dàq accusation yi ñu koy tekk yuy duppee ni dafa daal di doon jéem a jënd ab vidéo ci ki nga xam ne moo di Sidi Ahmed Mbaye loolu nag toll ci dix millions de francs CFA ngir amu vidéo bu nga xamante ni dafay nekk vidéo buy taxal kii di Ousmane Sonko digganteem ak Adji Sarr moom nag di expliqué ne lu ñu mel ay rumeur la nga xamante ni dañ ko diffuser ci ay média ak ci ay réseaux sociaux yi nga xam ne dara nekkul lu ci dëgg ba tax moom ñu ne mu daal di décidé porter plainte contre X ngir jéem a mën a leeral mbir mi ni mel moom Doro Gaye nag li ko tax a jokk nee du lenn lu dul def la lumière maanaam leeral mbir mi ni mel xamle Sénégal yëpp àdduna wërngal këpp ne liñ koy tuuma dara du ci dëgg dañoo jug pour yàq deram bu ñu sukkandikoo ba tey ci avocat moom mi nga xamante ni nag moo di maître Souleymane Soumaré moom nag nee na client Doro Gaye dafa victime d'une campagne ne dañoo jug pour tuumaal ko yàq deram yoo xam ne lu rek lañ ciy jublu waaye du ci dëgg lañ see jublu rek mooy salir image am daal di ternir li nga xam ne moo di réputation am loolu nag tax moom mi lee di Doro Gaye tuuma ya ngi koy tuumaa nag mu di jéem a jënd vidéo bu toll ci wala sax lu toll ci dix millions de francs CFA jël ko jënd vidéo ci si Sidi Ahmed mbay vidéo ba nga xam ne nee nañ daat ab vidéo la diggante soxna si lay Adji Sarr ak le leader de l'opposition bu Sénégal di Ousmane Sonko ci mbir mi nga xamante ni depuis deux mille vingt et ba léegi mu ngi ci kanam yoon muy cette affaire du posé suite botti cette affaire supposé euh, euh, diggante Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko moom Doro nag gannaaw ba mu jàppee ne daal dañu koy tuumaal te li ñu mel ñi ko génnee jubluñ ci dara lu dul yàq deram ak éputation réputation moom mu ñuy xamal ne nag déposé na plainte fële ca procureur bu ndakaaru ngir ñu jéem a topp ña nga xam ne ñoo génne xibaar bu ni mel donc daal di leeral lu ñu mel moom nag mu xamal àdduna wërngal këpp ne lii li ñu koy tuumaal ngir yàq deram waaye dara du ci dëgg moom deful ca benn yoon loolu nag tax na moom mi la décidé porter plainte fële ci procureur bu ndakaaru xaar fan la wànnante du bu jëkki gëtam ak plainte Doro Gaye ak cette supposée vidéo bu mu jënd ci Dahman Mbaye 40 millions 10 millions de francs